jërë ngeen jëf mbokk yi seetaan Tektal TV ñi ngi ànd ak euh, Sayer Fall bàyyi fële ca Allemagne Ousseynou Ly bàyyi fa Mamadou saw bàyyi Mami Danfa France bàyyi Malick Jité Grèce bàyyi fa Diop Amérique ànd ak Sayer Fall nekk fii ci Espagne Galicia Mouhamed Ndiaye nag ñu bàyyi ko Palme de Mallorca gis nañ bi ñu demee Palme de Mallorca ni ñuy toppatoo war ñu dëkk bi ak yëpp ak ñoom Marga ak yëpp la mais ñu ngi fii ci Celta Vigo cest à fi ñu nekk nii moom dañuy tiim dëkk bi ah. Mm-hmm. kon ni ñuy tiimee dëkk bi noonu nag lañ bëggee ngeen Tektal TV tiim ko bépp seen ci àddina bi yéen nag yéen a ciy jàpp seenu jasporaa bi gis ngeen lu baax ci diaspora bi ñu wax ko wane ko ne lii Sénégal war na ko am kon Tektal TV euh, télé diaspora la. ñu ngi gërëm tamit Salvador Salvador euh, doon activiste boo xam ne que ndar la dëkk bëgg ndar lool mais moom it correspondant Tektal TV la ngeen bàyyi ko xel bu baax day liggéeyal Tektal TV. te laaju ci dara da koy def te yàlla tax bu baax a baax a baax ngir bëgg lu baax doon activiste boo xam ne que waxam day rafet ay image am xalif général sax mën nañ ko seetaan kon lépp lu am ci Europe bi rek Salvador dina leen ko xoolal tam indi leen ko bu ma fi nekkul a baax ak Sayer Fall Sayer tamit ñu ngi koy gërëm bu baax boo xam ne Tektal TV di gën a yokk doole bu baax a baax Mamadou Sow ma ngay commandé yeneen Ousseynou léegi commandé yëpp daal Tektal TV bëgg lépp lu métti diaspora rek ñu am nañ ko mën a faje lépp lu metti diaspora ak luy seen bëgg-bëgg moo tax euh, sëriñ bu leen di nax seen nijaay yi nga xam ne que da ngeen leen di jox seen terrain ñu dem takk ci jar ñetteel wala ñeenteel ngay ñëw di laaj sa yaay du bëgg coow jip yooyu yëpp am ñun ci nax yëpp dañ bëgg kuy seetaan Tektal TV ñuy wax ci loolu bu baax a baax ma di leen wax ne boo yoretee sa xaalis di jox sa nijaay mu lay tabaxal fexe sa nijaay boobu am na rakk wala mag fexeel nga ne ko kooku yëg na ko fexeel mu xam ne sa yaay yëg na ko bu ñu doonee tamit nitu sutura parfois mën nañ def yoo xam ne naan bu ko yaa jégee du mujj fenn mais fexeel ba ñeent nit yëg ko rek ne yaa ngi dugal ak nga 20 millions ak nga 30 millions ak 40 millions ak bu nga 60 am na ci ñun ciy dóor yu mel noonu mooy nijaay bu jël sa xaalisu jarbaat nag takki ko jabar sëy boobu yàlla na naqari sëy ba yàlla na tas yàlla bu ca doom judd bu ca doom juddoo yàlla na mu doon doom ju lay fitnaal ndax sa jarbaat nga war ko jàppale jàppale ko mu dem fii ci Europe bi man maa ngi nii bu ma soxlaa 10 000 francs xaw ma fu ma jaar ba am ko. maîtriser wu ma fi dara ci wut fi xaalis kon kooku nit ki jóg nga xam ne kaw dox moom du fi am waaxu moo fi am ak daw pratiquement teel a yeewu yéex a wàcc doo am koy waxal wéet euh, jullit il faut nga volonté wu euh, jàng alxuraan il faut nga volonté wu yooyu yëpp nit ki dajale ko gisul ndeyam gisul papaam di góorgóorlu di rawale xaalisam di la jox yow nijaay bi ngay takk euh, jabar bàyyi ko noonu loolu dafa ñaaw loolu nan koy moytu bu baax a baax a baax a baax Tektal TV nag li ñu bëgg mooy di sensibiliser nit yi bu baax a baax di leen wax foo xam ne que comme ñun dañuy am information bu ne la nit di wax te xam na lan mooy sutura euh, yenn yi doo wax turu jàmbur doo wax kii mais di wax ne lii mi ngi am ci dëkk bi pour ñeneen ñi moytu ko bu baax a baax a baax a baax a baax te ngeen ñaanal tamit euh, Sonko ñaanal ko man maa ngi nii damay takk bracelet parce que lan la bracelet bi comme li Cheikh Bara Ndiaye di wax naan euh, liberté la. mais ñu dañu bëgg Sénégal moom suñu bopp et puis installé ñoom Sonko ak Diomaye ak équipe nga xam ne que dafay jëlee li fi nekkoon depuis 1960 ñu installé fi lu baax ngir yàlla ku sa loxo set ñëwal liggéey te booy liggéey bul sàcc bul yàq bul defi problème ñu jaare fii ñu xool benn dix ans buñ liggéey fan la suñu réew mën a toll parce que nit nag doo ko fal ba pare di ko fakkasal te et puis da ngay calculer nit ki bu la joxee discours ne bëgg naa lii ki fi nekkoon yàq loo xam ne ko balaa nga koy defaraat rek am mandat xaj na fi il fallait ko ñu toog waxtaani réew mi xool nu ñu koy defarewaat kenn ku ne defar te yàlla tax tax laa jóg ndax gis nañ ne diaspora bi ñoom ñëpp bëgg changement ndax lan suñ passeport bi dangay dem ci aéroport yi sax defoo dara nga mel ne ku tooñ ñu lay xeeb di lay yàpp di la kii façon yu mel noonu parce que bu leen dajee ci aéroport yi yaakaar na di ngeen def dara defu leen dara dafa am lu suñu njiit yi waroon liggéey bu yàgg te liggéeyuñ ko léegi respect boobu ñu jotoon am sax ñu ngi koy commencé ñàkk kon il faut que yaakaar dellu si nit yi mën a liggéey euh, ki la tooñ nga am dëgg ci kawam ak ku man di doon ak kuy baayam ak nu mu sant ak fu mu dëkk nga mën a am dëgg ci kawam boo tooñee tam ñu am dëgg sa kaw bu ñu wàññee maslaa bi jële fi ñett yi moo yàq senegal xelu xale la saytaane la ndogolu yàlla la ñu ngi tooñ yàlla fii di tooñ saytaane fee di tooñ xale fii yow koo xam ne que xelu xale la kay moom bu gisee dix mille waru ko xam yeneen kayit yi ku xàmmee xaalis ab dof sax xaalis lay ñaan kon nan ñu dimbali nit ki du doon magum jëm di defi toj tojam bu ratee penalty ñu ne xale la te xam na ni gérer contre contre bu amee milliard dañu ñu kii nan bàyyi di wax yooyu gis nga nit tubaab a ngi nii Mbappé ngi ay vingt deux ans vingt trois ans téye na coupe du monde xam na ne penalty doo ko dóor ci air bi xam na ne penalty bi doo ko talonné da koy dóor bu ñu taxaw naan ñu xelu xale la mën liggéey ngir suñu réew changement Tektal TV nag du mbirum sëriñ nag moo fi ëpp d' accord parce que boobu nag dañ cee mën a concurrence ak ku ne ba ci France 24 moo tax dañ koy téye ba mu dëgër mais dinañ leen indil émission diaspora dinañ leen indil émission yoo xam nag dafa jëm ci mbiru GP di waaw man maay wax suñu programme bi sax de ah balaa pirate kat yi di ko kii mais nan bàyyi noonu kon li ñu leen war a indil daal Tektal TV mooy euh, bépp GP yi ñu ngi leen di woo am na côté bu ñu leen soxla ci liggéey euh, ak GP fu mu mën di doon nag muy États-Unis Canada Belgique fu mu mën di doon ak Tektal TV Euh, sama numéro ngi noonu 77 527 18 07 message ma ci whatsapp après ñu xool nan la ñuy defee programme bi képp ku nekk ci dëkk tamit gis fa loo xam ne lii boo ko wanee mu sagal Sénégal wane ko boo ko filmé envoyé ñu ñu dugal ko si Cheikh Sidi Makhtar Mangasa foofu nga nekk tubaab yooyu di ñëw wax leen ñu wax ci Tektal TV bu baax a baax Mangasa di ko baax Mangasa il faut nga yokk bayra bi nag il faut nga yokk bayra da nga may jàpp kaañ ba <laughs> mooy loolu léegi Euh, bu gisee lu rafet ci Sénégal nan ma ko envoyé ñu dugal ko Tektal TV lu mu mën lépp loo xam ne que nag du lu rafet ci Sénégal ngir yàlla bu ma ko yëg boo ko rombee nu dummuy ko bu ko yëg ba fa taxaw sénégalais boo gis muy def nu ko su noonu bu ko jéem a xam bul bul nangoo sax bokk ak moom foo dëkk il fallait que ñu indiwaat respect bi Sénégal amoon ci àdduna bi ñun ñu xamee euh, Sénégal moom li ma lépp lu bokkut ak mu trian fu dem ci àdduna bi dañ koy fonk bu trian rek la ëppal kon nan xool li ñu yàlla defal ñu sàmm ko bu baax a baax loolu nag bul sant mbàkke wala si wala jaxumpa wala gajaga ba yàq ko bul doon sa baay doon nangam ba nga yàq ko bul bëgg lenn tubaab bi ñëw investir la pare nga jël xaalis ba yëpp jaay ko dem Afrique toog fa naan dootuma ndax léegi tubaab bi di la wër ci àddina bi bu bëggee dimbali keneen dootul wóolu ku ñuul yooyu yëpp ay problème nan ko moytu bu baax a baax a baax euh, Sayer yan ba yan Cissé nga mën a waxaat yaay réalisateur bi parce que maa dugg ci Cissé yëpp de lu a tax nit réussir jigéen ñi tamit ngeen moytu fii Euh, seen jëkkër indi leen nga ñëw ba fii di ko tappaas di ko indi problème euh, di ko wan ne jigéen dafa am doole fii loolu tamit baaxul parce que yow bu bu yàpp ne kii dafa am beneen jigéen bu nekk Sénégal borom këram bëgg ko indi di dute dute boobu mu indi yow mi def lu bon histoire boobu di siiw mooy waral kooku di mooy kële deful dara te ku wóor moom euh, ñu ñax koo wóolu rek dañ koy tooñ ku wóo ku tamit ku ko wóolu yaa ngi tooñ sa bopp kon jigéen ñi nan ormal seen jëkkër yi jàppale leen seen doom yi doom yi tamit ngeen fexe ñuy dégg wolof wala ñuy dégg tukkulóor alpulaar il fallait que ngeen am gëm-gëmu suuxat leen parce que tubaab bi moom boo yoroon ay milliards fi investir ko moom du jàpp ne moom fi fi nga dëkk du la jàpp comme boppam kon nag yow yaa xam ne fangam moom nga jàpp ko bu baax kon nag dafa bokk ci dégg làng dëkk ba fonk sa mbokk di déggante ñoom te wëlbatiku euh, di sagal sa réew di ko sagoo kenn ku ne foo nekk fexeel am mooy Sénégal luy symboliser na lii Sénégal nga di wax wolof wala alpulaar wala yu mel noonu di Sénégal ci sag bu rafet yu mel noonu loolu buñ koy def dina baax mais jigéen ñi boo waree sa jëkkër pour xaalis di nga dajeeg beneen gër góor bu la wor ngir xaalis góor it boo waree sa jabar ngir xaalis di nga dajeeg beneen jigéen bu la wor ngir xaalis kon sëy ak mbëggeel du affaire u intérêt affaire u kii yu mel noonu te bàyyi leen tamit jëkku tubaab di ko nax jàpp ne tubaab du nit déedéet gis nga man gëm africain wala tubaab naan africain yi baaxuñ wala tubaab yi baaxuñ déedéet gis nga boo dajee ku baaxul daje nga ku baaxul ak nu mu mën a sant ak fu mu mën a dëkk ak dafa ñuul dafa xees métis la tubaab la loolu parce que di nga dajeeg tubaab yu bari yu lay defal baax di nga dajeeg yu bari yu la jàppul comme bopp di nga dajeeg tamit nit ñu ñuul xam ne que euh, bëgguñu la di nga dajeeg nit ñu ñuul ñu bëgg kon affaire bi du ci baax ak ñuul ak weex de ci nit ki boo dajeeg ku baax rek daje ngaa ku baax mais kon fexeel ba baax ñi bon ñu ber leen à côté ñu dem suñu yoon bu baax a baax kon wax naa sëriñ bi bu mu naxaate euh, et tamit moodu moodu yi tamit lenn jaaxal na ma euh, ñu bari dañ yaakaar ne sëriñ si la boo yoree numéro extérieur lépp lu lay laaj day gën a diis loolu yàgg naa di ko joytu mais nit ki bu nekk ki toog doo ko yemale ki fi nekkul loolu comprendre naa d'accord amul problème mais pourtant lan moo tax ku nekk bitim réew bu jënd màdd sax day gën a seer ku nekk bitim réew buy jënd montre day gën a seer léegi nag ñu bari dañuy ñëw continuer yor numéro Sénégal mel na Sénégal la nekk mais loolu li ci xaw a dangereux bis boo dajee ko baax mu xam ne yow intention ba nga koy xam wóoluwoo ko rek loolu day yàq ab diggante te loolu baaxul moo tax waxante leen dëgg rek foo man di nekk woo ko numéro bi nga am wax ci ak moom euh, li mu la wax boo ko mënee nga def ko boo ko mënul nga bàyyi ko kon daal Tektal TV gërëm nañ ma sàmba Diop bu Maya lee mu takk jabar docteur Wade bu Ganga Wade lee mu takk ñaareel Petit Sow bu Rahma lee mu takk ñaareel man moom ma ñaareel maa ngi nii booy loolu man moom tal naa yeneen ambition quoi mooy loolu gërëm naa soxna May Diop kon ak soxna Seyna Diop ak Sëñ Fall Bak ak soxna Fat Jaxate euh, nijaay Cheikh Jax nga sax bul takk ñaareel yow tamit Seyna Fall <laughs> moom it mu gaaw takki ah Seyna Fall bu takkee Ousseynou li li moom moom bu <laughs> du takk mère Fatma Ndiaye du ko ci bàyyi na yem foofu rek ci madame li ak père Adama li Mamadou Sow Mamadou Sow yow tamit takk ñaareel Allemagne dafa mel ne Euh, règlement allemand yi daal ak yu Europe yi moom boto bokkul daal xaw na diis tuuti da ngay gis ne fii moom ay jabar du fi kon gërëm nañ Mouhamed Ndiaye Mouhamed Ndiaye yow tam bu takk ñaareel yooyu Espagne borom këru Marga la ak ñoom Marga ak Patricia borom euh, fële euh, Palme de Mallorca moom gërëm na ko ak Patrick ak Dolbert ak euh, Fatou Sila ak Oumou Sila ak Dieynaba bi day basket Dieynaba Sayer euh, am na xarit bu basket naa il faut Dieynaba ànd ak moom ñu dem NBA yi di yëngal foofu NBA du jigéen di def basket waaw mi ngi noonu Mouhamed mag bëgg basket Abdou Khadir Diop basketteur Qatar Tektal TV daal da ngay bës ci YouTube bi boo nu seetaanee TikTok bëgg nan boo nu seetaanee Instagram bëgg nan boo nu seetaanee page Facebook Tektal TV l'officiel bëgg nan mais fi gën a neex daal da ngay dugg ci YouTube bi nga def Tektal TV nga abonné di seetaan même boo seetaanee ba amoo loo def rek bàyyil noonu rek muy muy daw rek muy daw rek bu loolu muy daw rek dinañ ci fayee ko ngeen comprendre bu baax a baax Fatou Diop Amérique muy daw dee leen seetaan euh, jël leen téléphone yi tubaab yi ngeen abonné ci Tektal TV dafa war a màgg romb ay 2 millions abonné yaatu bu baax a baax kon sayer ñu ngi fii ci Galicia mu doon dëkk bu rafet gis na fii du da nga am géej ña da nga am géej ña waaw ba ba sàmm jëmal beneen côté bi nga jël ñoom petit dem ñu fii Galicia instant bi ñu ngi ci kaw da nga am lépp noo ko bëggee daal bu baax a baax a baax a baax Cheikh Sidi Manga Makhtar Manga sax il faut ñu indi la fii euh, après ñu ànd ak sa yar ñëw fii Mamy d'enfant ñu dem fee dama bëgg sama nit yi ñi xamante kenn ku ne di déplacé wu ñu def euh, ngante maamu bu ñëwee fii def fi benn dix jours dem fee def benn dix jours Sayer miinal ñu Espagne Ousseynou li miinal ñu Allemagne mu ak Mamadou Sow ak euh, Matar Soare ñoom ñu waa Cologne lan Euh, ak mère Fatmata Ndiaye ak Fatmata Ndiaye suñ sox bi moom am na jëkkër léegi léegi sayer bu nu ñëwee meññalee Galicia Mohamed Ndiaye meññalee Palme de Mallorca euh, laat njigal mi ngi Madrid léegi ñu dem fële euh, bu ñu jógee foofu yëpp ñu dem Paris moom it dafa nga fa ak Cheikh Sidi Mokhtar sa ak Pati Sey ñu dem fële Nice fekk fa Binet Binet Diop moom itam dañ koy gërëm bu baax a baax waroon nañ ñëw ci moom kii ko Salvador tamit ñu fekk ko Marseille mu miinal foofu ak Kandra Sissoko Euh, Tektal TV daal nii ma leen waxee foo nu man di seetaan bëgg nan page Facebook Tektal TV l'officiel ak yëpp mais del seetaan yi ci YouTube bi daal bés ruus bés kolos bi émission bu ñëw ngeen am ko ngeen di kii bu baax a baax a baax te Cheikh Bara Ndiaye tam dinañ ànd ak moom def tournée ci Europe bi ak yëpp wër foofu yëpp loolu ñu ngi koy togg Cheikh baara man bañ a wax daal waaw parce que programme bëgguñu ko yàq mais daal euh, Galicia Sayar ngi nii di ñu yàq bu baax a baax a baax ñu gis dëkk boo xam ne que baax na bu la neexee sax doo dox mag day taxaw rek ñu ko yóbbu muy dem ay kilomètres nga xam ne que tubaab yi daal respecté na nit euh, respecté nañ doomu aadama kon nag lu baax loolu ñu bëgg Sénégal am ko bu baax a baax a baax a baax euh, gërëm nañ informatique seen Tektal TV jéeju jéeju jéeju informatique. moom ci Tektal TV bu baax a baax a baax gërëm nañ soxna May Diop euh, ak soxna Fat Jaxate ñëpp daal ñu bëgg Tektal TV bas kurus bés kulos émission bu ñëw ngeen am ko Tektal TV ci YouTube bi ngir abonné moo nuy neex di seetaane partagé commenté maa la jiite gërës kon Tektal TV jaajëf sayar fa